mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbokk yi ba léegi rek ci le 19 mars bi deuxième grand combat bi moo ngi nii comme ni leen ko waxee sànq war na ci diggante ne moom mooy ndigal ñoom ñaar nag yaakaar naa ne bu ñu fi mujjee ku ci nekk dañoo yëkkati sa loxo sañ bokk bëggee dimanche leen xaaraat ci bëre ci xeex bu metti ci mobilisation bu doyo doyo doyo doyo dama comme ni ñu ko defee woon noonu lañ ko defee waat rek joxaat euh, président Sidi Diakhaté mu nuyoo waa àdduna waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu surtout nag euh, le président Bira Sène moom mi nga xam ni moo yore làmb ji di gërëm di sant di sant son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak soxnaam mais surtout di nuyu suma xarit monsieur le ministre des sports ba Diattara di gërëm di santaat ki nga xam ni barki démb rek la ñu jógee ci këram monsieur Maguette Wade moom mi nga xam Maguette Sène moom mi nga xam ni moom mooy DG du COUD donc ñu koy gërëm di ko sant bu baax monsieur Maguette Sène ba pare mu nekkaat mali Malicounda ku nekk gis ñu nag moom rek li nga xam ne def nañ ko dem Sénégal gépp kontaan ñuy waajal aussi drapeau ki nga xam ne mooy monsieur Oumar Youm war koo dem def ji fële ci Caajaay donc di nuyu suñu xarit monsieur le ministre Cheikh Kanté di waajal drapeau am di di di waajal tey jii drapeau Yves Lamine mais tey jii ma leen di xamal daal li ñu indi fii mooy dimanche 19 mars bu ci yàlla andee ci diggante kii mooy deuxième grand combat bi. diggante kaaw gourdin borom gourdin bu rëy bi wante am naa yaakaar ci ni gourdin nag bala muy jóg day am ndigal bu dee dajeeg ndigal nag xaw ma nag ndax ndigal dina ko jox wala déet kon nag ngeen war a xam ni combat bi lamin komba bu am solo ta du yomb bu Pape mbay bu ñu paree Pape Mbaye bu r war cee topp moom ak euh, ki nga xam ni moom mooy turbo plein bu Tivaouane waaw ba loolu ay combat yu garaaw laa tëgg nii donc vraiment après Clédor donc moom mooy war a ak ceeb junior bu nekk kilomètre cinquante borom yàpp rafet moom ku romb rek mën nga faa jaar di jën yàpp donc du ma ci sori Lamine lépp mi ngi nii ci sa loxo damay bàyyi nga waxtaan ak ñii parce que fi mu nekk nii defe naa ni ça a vraiment tiré en longueur. waaw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 di leen nuyu yéen presse bi ñu fi taxaw yëpp di bëggee ndigal di nuyu sunu père mooy di Diakhaté di nuyu waa Dalifor yëpp rawatina ki nga xamante ne moom laa àndal muy sama frère maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama manager Assise di nuyu père Tombe bu baax a baax a baax. Mhm. Tombe père Tombe borom dafa leer. moo lay jox clé bi baax. yàgg na. géej waay dafa am loo fa jot a def de tey na nga nga dajeeg ndigal mi nga xamante ne. heure bu géej waay jaaxle rek mu fomb seen dérangooy mhm. ndax da ngay delloo mbaatu ci ndaa la waaw yaakaar wax waxaat du bari wax te yaakaar naa yàgg naa ko wax géejawaay pareeguma fa dama fay dugaat ci kàttanu yàlla boo pare ci ndigal mi incha allahu rabbi dama fay dugaat ndigal xare bi jeexagul waaw ay xalaatam la wax rek bu soobee yàlla tare mu jëdu géejawaay samay kaf nag béy na sama jàmm béy na nii mais walla xam na si fii la billaahi wallaahi bu duggee fii dimanche 19 mars ma duma ko daan ko kii du ma moroomam. technique c'est que ñi daan géej waaye sax ñoo ko mën dañoo juum rek ay xale lañ mu magu leen rek mais mag ni moom lay bëreel. te waxantuuma sax bërentuuma fawantuuma sama kaf nag béy na trop mais combat bu ma bëgg laa jël te incha allah le naa ko wane. moom da ngeen a génnagul. non loolu xalaatam la tey la koy mujjee dugg man maa la ko man maa géej waaye maay tëj maay tëj képp ku leen sonal ma lijjanti ko ñëw toogaat fi ma toog góor gi su ruq baa ngi nii. te di nga lijjanti kii. wallaahi du yàgg sax. kii ya gën neex a bëreel. lu tax parce que teg ci xel lay bëree rek te ëpp ñu ko. mais du doole du bëre xel lay teg te xel mi fi léegi li ci des mooy que na dëggal boppam bu jour ba ni ko sëñ Sidi mi bëggee ba dagg yi tamit bàyyi mbëri Cees yëpp ñëw fii jël ñu. Hmm. mu si du isaat bi. ci bëre si fulla ak fayda ak jom. di ñaan suñu boppam mooy ñu ndam. yow nag tekkatu xel nga. Lamine yaakaar naa lu mu wax nii am na ñu ko waxoo n'est-ce pas mooy maanaam man na laay bëree te nekkul moom moo may wax nu moo bëree am na li nga xamante ne jarul ñu ciy wax di ci waxaat kaw guree moom mag la te ci kàttanu yàlla le 19 guree bi dina ko dal ma tëbal ko comme nu ma def ay rakam nee naa dama fay dugg dugaat fa te pareeguma foofu sax nu fa waajee def ñu ko raw laa fay def ci kàttanu yàlla yow kon tënga sa ci nu fonde instant bi non loolu dama ko yàgg mbapat laa fa commencé foofu laa ilaaha illallaah mbana fonde la ànd demul non yooyu du ma sori ku ñëw jël nekk bërëb sàngam rek fii ku nekk fa nga daan soo fa limee la nga daan mu bëri mais ñàkk vision ak ñàkk jëm fu sori mooy tax nga ay fii laay def lii fii man lamb fépp fu ma adversaire rek dama koy ndax man ñëpp lay bëreel man Kaw Gourdin yàlla xam na ne xam ma sax fu mu dëkk damay dégg fii laa soo de xam ne Dalifor a dëkk kon toppatoo fu dëkk parce que bu doon Dalifor kese laay bëreel du ma lu bëri ndax Dalifor bëriwul ay mbër say adversaire dafa tombante nga nekk géejawaay nga daan fa ñaari nit ci sa ngay yem incha loolu ma maa la ko wax te lii ñuy wax nii mi ngi fi après combat bi dina ñëw wallaay kii tey mu mujjee dugg géejawaay pour daan te jii. fan nga teg loolu da maa ko mën li ngeen bëgg maa ko mën maa ko ëpp doole baax ko dàq bëre. la may def de parce que xam nga rek kii bu taxee fii gin ma nekk paa ba pare naan ma moo ma mën moo ma ëpp doole daa fekk dugguñu fii. fii fii muy fii muy nañ dem léegi ma dal maye nañ dem léegi ma may ko dal ah. du ko fi maye nañ dem léegi ma dal non duñ ko maye yéen leen lu ngi leen neex woo leen ku leen neex mais kenn du ko fi maye moom ñaan naa leen lool rek teel na nag seen sa di wax ñuy wax nañ dem ko léegi amul maye de laa ma daan ko ba tey mais amul maye de tey sa bëgg parce que ci feebar la jógee amul maye daa si buru mbaar ah, di ko ñaanal yàlla nag balaa la 19 mu am tànn ñëwee comme nu mu doon ñëwee. waaw ma si buur la loolu julli da koy def ak nit ku jëm fenn quoi mais genre yu bon jot daa soxlawu man nit jullit nit laa. damay feebar non c'est si damay parce que damaa jóge si ay combat yu sama patron am combat ma ko doon jàppale fatigué si yaa ngi dégg ah, loolu jotawut a da signature contrat ne la buñ simee ko léegi nii mooy ma daal la man maa la ko wax. loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp fu ak képp kuy bëggee Kaw Gourdin ak fépp foo mën a nekk rek rawatina mafia laalaake bi lamb ji seen lamb waa Roof Tàngoor Géejawaay lamb ji seen lamb la. ah et puis ah. waa Géejawaay. parce que man dam fa am ay mbokk dama fa am famille dama fa am lépp Lamine nekkul c'est la première fois may woo waa am ay mbokk am Azim du caaxaan comme nu mu ko waxee comme nu mu ko waxee man ndigal fii ndigal ah, non maanaam xaw ma fu mu dëkk quoi xaw ma fu mu dëkk ah, si amay dégg parce que yooyu noonu yëpp yo yooyu yëpp amul solo lamb ji lamb ji lamb ji la 19 la waaw noonu la demee kon xam nga ni am nga am na ah, ma ne xam na fu digal dëkk parce que yoonu na nit démb pour pour mu tibb tànku ndigal kon nag xam na ko yow it ki nga yabal barki démb moom gis na ko xam na ko ma mayaak sama tànk fii léegi bala ñoo dem mu yóbbaay bu soxlaa suñu adresse waa wallahi billahi su combat laa jëm su jëlee sama numéro su ma vocalé ma rappelé suñu waa kër yëpp seen tur yi ak sama tur dëgg ak sama yaay ak ñaata at la am sans poids lépp ma parce que yooyu yooyu sëñ bi lamb ji entraînement mooy daan mbër ak mën a bëre ak fulla fayda ak jom yooyu noonu détail ay huitième position la xam nga la ko teg na dem defi leneen làmb ji. Ah. entraînement bu wóor mooy maye fi ndam. le 19 kan mooy gën maa koy gën lépp maa koy def maay mobiliser maay neexal maay fecc maay bëre maay daan ah, incha allah rabbi kii nag mooy parce que instant bii nii ma bàyyi dafa jël ay décision yu fermé parce que dafa am wax am moom du ma ko balaame parce que bëgg na combat bëggoon naa ko wax dëgg yàlla ñu am ñu jaar suuf bëgg a jël beneen man sax ay wax ju kii du andi lii bala 19. Kanji ma déy. ba 19 yàlla baax na Moustapha Kanji mooy DGM. moo ma déy. nee na ma ndigal dina yëngal jamono. waaw loolu yëpp dañ ko koy ñaanal parce que Père Sidi mérito lu raw loolu. képp ku mu mënti tëgg. da ko war a andi la nga xam ne mooy satisfaire bi. Mm. ci stade bi. ñaan naa yàlla kii ba ma koy daan le 19. Mm. mu andi mbooloo feesal stade bi ma daan ko. pour nga xamante ne duñ naan tungu ne du teew muy nataal ndigal mii nii wallahi azim lu ma lay du caaxaan de lu ma lay du caaxaan ndigal mii bu arbitre sifflé yaa lamb du yàgg na taxaw fal man dama di magum jëmm di kilifa yow sama bopp yow sama kër man kenn du ma wax ni ngay bëree mais dama la ki lay seetaan seet bi dama ne mën nañ seet seen dama leen koy wax sax du si bàyyi da ngeen ne suñu mën a seet ñu seet wala ñu leen si xaaral leen non man maay li saxaa sama bopp man sëriñ laa damay ñaan. sëriñ barki yonentu yàlla Muhammad maay seetaan sama bopp waaw. seet nga ko yàgg na. loo gën daan. noo ko daane. na billaahi dinaa la ko wax. Ah, wax ma ko fii non du ma ko wax direct. dee ma ko. non non non la ko vocal. d' accord amul benn problème mais kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ah di kontaan ci kañ bi nga xamante ne tey dugal na loxoom ci combat bi di ko ni muy jëndalee. ndigal borom na ko kii waaw noonu la demee man kañ nii nii bu ne woon bu signé damay dëpp ñibbi waaw non non comme ni ma la ko waxee moom ni mu nekkee DG am noonu lañ nekkee moom tam noonu la nekkee suñu DG parce que parce que parce que tëgg na ma n'est-ce tëgg na ma man nest tëgg na ma kon tamit dañ koy ñaan moom tamit nu mu mënti jàppalee ndigal mu jàppalee ñu ko ñun ñëpp ñun nañ jàppale ñu ñëpp mais xam nga ñoo ngi ñoo ngi woo kanji kanji laay woo suñu DG muy borom Pikine muy borom làmb ji di ko ñaanal jàmm bu baax di jox rendez-vous ñëpp le 19 rawatina suñuy soppe ñi nga xam ne ñoo nekk Dalifort Saala Saala yi ñoo ngi leen di woo waa Njaga ñoo ngi leen di woo ah ñoo woo ñëpp ñi nga xamante ne ñooy soppe Kaaw Gourdin diaspora bi ñoo ngi leen di woo le 19 pa bi bu mu def dara Lamine lamin yow ñaata yoon lañ lañ tiimanteel micro bari na bu taxee làmb ji du yàgg dina taxaw euh, Lamine li ma ci yokk rek mooy ñii seen combat bi dama ko jagleel suñu benn jigéen muy Elisabeth sambu ku nekk xam ko ci biir seen euh, CNG de lutte bi mm-hmm. mu nekk neuf fois championne d'Afrique mm-hmm. bis boobu ñu jagleel ko ko laajuñu ko ci un franc lu dul xanaa kay ñun ñoo koy jàppalewaat ci préparation pour ñëw fii te boo ko defee moom boo ko jaglelee combat bi muy benn euh, drapeau bi yaakaar naa ni loolu mooy sargal nga encore tey ji CNG de lutte sargal nga mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee